immédiat, ce sera immédiat. Ce sera, il faudra mettre le pays au travail. Immédiatement. On accélère. Bah, la cadence, fortement. <laughs> fortement parce que il faut que ñu indiwaat espoir ci suñu ndaw ñi. lii ñuy ça nous fend le cœur. parce que je pense que en tant que yai, ça nous fait saigner le cœur Madame. il faudrait que nous ñu redonner espoir à ces jeunes. parce qu'on ne comprend pas pays boo xamante ne euh, pétrole gaz actuellement, et pourtant je n'y ai koy d'idem di dem outil euh, de l'ambiance mais parce que aussi c'est l'ambiance aussi et puis ñay dem c'est pas les plus pauvres mais boo gisee justice mais ni muy 2500 jeunes ñu tëj leen ci kaso bi lu ñu doon def Japon, nañ pays démocratique nous, ñu nekk mën nous, manifester suñ kontaanul ñu rap la ràpp ci donc mon responsable départemental de 2024 bu Souleymane Dembélé taxaw responsable passé, Abdou Mbake, ak une euh, voilà ñu aucun acte judiciaire juridique n'est posé aucun six mois des cas six ils sont plus de 2500 dans ces cas comme ça mais je des nuits désespéré parce que ce c'est pas seulement matériel wax train de affaire justice hmm. donc loolu aussi boy set, kersa la pour ne pas dire gàcce la ci ci ci ci ci yi demee ni nga ko waxee or am am am pétrole un gaz mais pour nous, c'est aussi les agressions yi am contre la démocratie parce que démocratie aussi euh, Moi, li li li dundal nit ki aussi nga am sa soxla voilà euh, mon ko wax voilà et cetera ba ci yenn journalistes yi gis ngeen li ngeen ci daj voilà donc yooyu yëpp aussi dafa bokk ci leen découragé donc projet aussi démocratique bi dafa am dafa bokk nag ci nouvelle gouvernance bi mooy ñu indiwaat démocratie bi démocratie aussi waxul du désordre bien sûr ça ne veut pas dire le désordre mm. mais ñu ñu ñu ñu ñu gën ko saxal on peut pas tout faire au nom de la démocratie. ça c'est clair mais ñu saxal aussi euh, vraiment yelleefu doomu aadama euh, les droits des citoyens euh, loolu it day doon engagement boo xam ne dama koy jël de manière très ferme. vous avez parlé de diplomatie gagnant gagnant. Hmm. lan lañ mën a dégg ci loolu. diplomatie gagnant gagnant du dara lu dul. man hmm. sama intérêt bopp moo may moo may moo may moo may soxal. le Sénégal ma am ennemi du ma nangu Sénégal am ennemi ay xarit rek laa yam waaye xaritoo bi yépp ci sama intérêt lay doon. parce que dëkk yëpp noonu la ñuy doxal France intérêt lay doxal donc Sénégal na doxal ay intérêt Chine intérêt lay doxal Sénégal na doxal intérêt Brésil intérêt lay doxal na doxal intérêt nañu xool nag fi nga xam ne foofa la ñu yow nga am ci man ma am ci mu équitable mais mënu am samay ressources man nga ëppale ma ci mu te nekk voilà yow munuma sa yoo buggee dëggee sama dëkk dugg man sama gars ñi bu bëggee dem ñu ne leen léegi mais moo tax vraiment ma gisee voilà euh, je vois que les étudiants euh, désormais pour dem France ñu ak la loi bi ñu nar a passé da ngay pay caution na tax ñu war a toog suñu réew yi am suñuy centre de formation yoo xam ne day nekk à niveau mhm. voilà ñu wóolu suñu bopp man li ma gëm mooy wóolu suñu bopp te war naa mën a nekk mhm. taxawal suñu bopp loolu nak la muy laaj. damay li ma wax beaucoup un esprit de sacrifice de nos dirigeants. parce que nak amna fo foo fi buñ fa bu euh ce titre en tout cas man sama titre moy don maanaam Sénégal jóge fi dem ci benen niveau loolu loolu loolu moy fierté nationale wat ko aussi ci suñu xalé yi. nga ne man man je suis fier d'être sénégalais je suis fier d'être sénégalaise voilà am ci am ci am ci titre parce que gis nga sa dëkk di avancer tay Rwanda fo foo leen gis bu ñuy dox dañuy teen parce qu'on est Rwanda Rwanda Rwanda mais ñun ressources yi ñu intellectuelles, culturelles culturelle Rwanda qui li ñu manqué une vision bi ak ak gouvernance une véritable révolution de la gouvernance voilà ba nga xamné ne amul dërëm boo xam du dem fa wara dem di expliquer nak di waxtaan ak sénégalais parce que ci am solo yamalé aussi ñep ku nekk gis né fi droit yi ñoo yem day am ay mesures symboliques tay bu ñu un recrutement fonction publique amna 400 chauffeurs.

ñu teg kees ngeen di tirer di tirer di tirer di tirer. Hmm. bu place yi jeexee ñu ne ah place yi jeex mais loolu la amul amul doomu maire bi doomu ministre bi déedéet yéen ñëpp a yem mais nañ ko def ce n'est pas possible li may wax nii lu lu lu lu faisable la du lu extraordinaire dafa di lu ma gis gis lu ma ba noppi nag il est temps que vraiment ñu ñu li li américain naat leapfrogging lu saut de la grenouille c'est-à-dire ñun dañu war a jóge fii tëb na le mooy li ma wax accélérer la cadence ci suma xol bi laa ko tibbee parce que damay gis potentiel bi sénégalais amna xel. Mhm. sénégalais euh, tolérant na xool li ñuy dundee. wala fi amul ñu naan le diw ethnique nangam xëy ci jamono yu mujj yi la xaw tension yoy am mais musul am. Mhm. voilà dañuy seyenté suñu biir. wala euh, chrétien musulman yo jox ma yo bu la yap tabaski vraiment lolu mayu yalla la aussi yalla defalu ko tous les peuples. Mhm. kon bu fekkee ne ñi ñu jiitee def nañu ci les efforts qu'il faut jàpp naa ne ñun saut de la grenouille la ñuy def du ñu benn benn benn benn déedéet avancée spectaculaire la ñuy def te war naa mën a nekk lu war a mën a nekk on a tout pour pour réussir alors oui. pour parler des infrastructures euh, et surtout aussi des infrastructures sanitaires je pense côté santé également am ngeen ci ay ay ay ay idées yoo xamante ne mën ngeen ko kooku mu ngi woon ci suma programme éradiquer de la, la pauvreté parce que pour man la lekk ba suur mhm. euh, feebar faju euh, mën a aussi euh, dund fu euh, dafa am sele am solo ak njang commencé santé santé war nañu am un hôpital régional de référence dans chaque région tay amna ci barrière yo xamné ne boo un da ngay jël jógee Kédougou faju ci Dakar c'est pas normal suñu centre de santé yi ñu mettre leen à niveau tous les centres de santé am au moins radiographie échographie petit euh, laboratoire ak un petit une petite pharmacie parce que suñu centre de santé bo boo la ngay génne moy liste ordonnance donc lolu dañu koy def aussi ci priorité yi da fay am solo dal di donne une des priorités la mise à niveau du plateau sanitaire un hôpital régional de ref par région fexé ba am suñu centre de santé ñuy ñuy ñuy dox comme il faut mom euh, ci suñu ci suñu priorité la euh, logements sociaux temps yi gis ministre bi mu ngay voilà et cetera joxe nañ 20 euh, kër et cetera waxuñ loolu logements euh, loolu programme bu am solo la da ngay seet noo koy liggéeyee décentraliser programme bi am na ñoo bëggatuñ dëkk Dakar bëgg nañ nekk seen dëkk depuis HLM kooku c'était une excellente idée du président Senghor boo demee tey Sénégal Nioro am HLM mm-hmm. voilà Bignona am HLM Matam am HLM mais aujourd'hui euh, tradition vous dañu ko perdre fexé ba dans suñu zone yi parce que nous occupons le territoire bi aussi dafa am solo Nous dankaliko Dakar gis nañ voilà. C'est pour ça qu'ils ont essayé de décentraliser un peu euh, c'est très près de Dakar man doon jël solution bi ko gëna a pour pas mais dafa Dakar euh, déjà mais il faut que moi, am ay

la koy indi moy d'abord comme comme, mhm. ñu décentraliser ko moy li ma wax sank mhm. ak réindustrialiser du réindustrialiser parce que ñun dañu désindustrialiser wu. li fi amone as amone amoon Bata amoon nañu Icotaf lool yépp disparaître. Mhm. encore une fois je ne awma awma problème ak suñu mbokk commerçant yi. mais suñu mbokk commerçant yi dañoo war doon ay industriel au lieu ñuy jéggaani ñu jappalé leen ñu am ay usine di produire fi dafa am solo. mais ba ci am ba produire auto soxna nee autos c'est pas la mer à boire au moins des unités de montage ñu am ko fi mhm. voilà au lieu ñuy xol auto bo xamné ne daw na Europe ba son carburant xaw gasoil nga xamné Dakar ci ville yi gëna polluer ci monde bi la bok xaw ma quatrième la ñu xaw ma. moo tax moo tax lépp bëri fii saqat seeg asma yu ne mhm, mhm. parce que day oto boo xam ne pollué na dëkkam ba jeex ñu indi ko fi ñun luñu téré am ay usine yo xamné dañ fiy defar dañ fiy monter auto ce n'est pas compliqué sénégalais bi am xel bi xam-xam la. oui chinois yi loolu la ñu def yi nga chinois yi 1949 dañ doon dee ak xiif ñi judd 49 ngi fii di la dégg lii may wax moom la ñu def dañ daan importé lu ne ay kudd ki dàll ki ñu xëy ne loolu yëpp dootuñ ko importer ma nekkee président de la république ministre de l'industrie dama ko daan jox ma liste bi nga xam ne produits yi mën nañ ko fi produire dans 3 4 mois kudd neex naa di defar quand même ay palaat yi ñuy lekkee war naa war nañ koo mën a defar ay carax koo mën a defar hmm. ngay dem di yéeg puso voilà puso cure-dent yooyu do dañ koy importer kon loolu ambition la ak vision man non la gis ak vraiment euh, sénégalais yi aussi ñu waxtaan ak ñom euh ku nekk nak delu ci liggéey ñu indi indiwaat nak le mythe de liggéey liggéey dafa am solo. Mhm. américain yi bu ñu lay bàkk dañ naan you are a very hard working man wala a very hard working woman mooy yow ku mën a liggéey nga borom kontaan war nañu koo indiwaat fii danaa indi concours artisan yi mhm. meilleur menuisier meilleur tailleur meilleur mécanicien mais nit ñi vraiment am émul voilà émulation nit ñi mën a mën a mën a kontaan ci seen liggéey voilà ñaq di jëriñu parce que ci la sénégalais yu bëri les 99 des sénégalais seen ñaq la ñuy dunde amuñ dana lu ñuy dunde parce que bu ñuy wax corruption bi na la fekk sax nga nekk fa <laughs> place ba ñuy corruption bi day amee kooku ci élite ba la donc loolu dañuy indiwaat aussi mythe boo xam ne bi du travail. Mhm. waxtaanaan ak ak suñu mbokk sénégalais yi ak surtout les jeunes. ñu ñeme liggéey. voilà jeunes yi aussi ñu gën leen encadrer. Mhm. ak liggéey ak loisir aussi. xam nga côté boobu kenn du ko wax mais jeunesse day am loisir. Mhm. dafa am solo centre de jeunesse yi xool les stades amone sax rénovation des stades mais xaw sax fu mu am département bu nek warna naa am euh, béréb bo xamné bi jeunes yi war nañ fa mën sport mën nañu am une salle. voilà des jeunes voilà salle des jeunes ñu mën fa am seen musique ak seen demna euh, voilà ci yenn village yi jeunes yi loolu lañ doon wax. mais voilà ñun dañuy toog soo magoon on on rien à faire une jeunesse aussi est fait pour voilà avoir des loisirs loolu day bokk.

fekk moo am zéro mois nga ñëwaat fa dix ans fekk ko ci famille chinoise ba ab chinois nga fay fekk. doo fa fekkaat Sénégal pour wax la culture ni mu fooree ci doomu aadama ñun suñu culture dañ koo sàggane kasak gi fàtte nañu ko baaw naan yi fàtte nañu ko mais loolu mooy sénégalais bi voilà euh, yooyu dañu koy indiwaat acteurs yi ci nekk mën na nekk seen liggéey mën na nekk seen profession réhabiliter le théâtre très bien un peu ça réhabiliter le théâtre industrie de la musique aussi ñu encadrer ko sans comment ngi wax banque des artisans mais bokk ci ñi nga xam dañ leen financer voilà les artistes les voilà les comédiens nous ci la ñu aussi. parce que réew aussi loolu la ñi ko seq dañu bëri ñoom it seen dans da les personnes à mobilité réduite. c'est ça les personnes vivant avec un handicap avec un handicap physique comme mental. parce que nous avons aussi l'handicap mental le cas amul école.

d'accord fan lañu né ak na xala bari na liñ ñu fiy dégg temps yi ci affaire ay ay bébé mais où était l'État où était l'État ministère de la femme et de l'enfance était où l'État a laissé faire mais où s'en est pas préoccupé loolu day doon parce que suñu xale yi ñooy suñu trésor en fait ñoo ñuy remplacer ji doon ay ay Aïcha doon ay <laughs> et cetera mais loolu état responsabilité première mooy prendre en charge ses enfants nee nañu état boo bëggee xam efficacité am da ngay xool ca na muy toppatoo ay ndaw mais suñu ndaw yi ñoo ngi jël géej. voilà ñu naan la bébé yi voilà ñu ngi woon ci pouponnière bi ñii dee nañ ñii wéete wéete wéete l'état à ce moment là. donc loolu it aussi. Mm-hmm. ci li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy soppi lay doon. très bien un état efficace état boo xam ne bii da nga xam ne yow da nga fi nekk véritablement pour servir hein pas comme ça rek euh, lip service maanaam wax rek déedéet c'est-à-dire dañuy dañuy dañuy taxaw suñu citoyens yi li tax nga mën ko def moy li ma wax décentralisation ba ci quartier bi quartier bi ku fa judd nañ xam kan la. très bien boo réeree danañ xam danañ laajte foo dem euh, ca village ba. Euh, ku fa feebar xam nañ ko ku fa làggi xam nañu ko euh, ku bëgg formation xam nañu ko foofa la action de l'État di efficace citoyen bi mën a participer tout répertorié parce que bu fekkee ne yépp dem na mhm. boo nee indi leen ku ne cent francs parce que lii la ñuy def dañu ñee dañu sawar mais euh, très bien alors euh, on va vous laisser deux minutes donc euh, deux minutes pour convaincre où vous allez faire face à cette caméra nga téléspectateurs peut-être yenn question a une question à aborder et dire pourquoi nous allons choisir une femme pour diriger le Sénégal pourquoi vous et pas les autres. mais euh, votre caméra est là une femme ce serait excellent parce que <laughs> euh, danaka ñu Euh, rôle bi ñuy joué ci kër mooy tuddee njaaxanaay doon yaay uuf ñëpp voilà buñ duggee ci waañ bi lu lu lu lu bool bi tuuti tuuti ñu fexe ba ku ne lekk en fait euh, réew noonu lañ koy yore en réalité mm-hmm. réew euh, ku ne dañ cee war a gis sa bopp mooy li ma wax sànq baykat bi nappkat bi artiste bi jeune bi femme bi personne age yi jotuma wax ñoom mais dama ci am programme këru mag këru mag tey mag yu bëri ñu ngi ak seeni feebar dañuy bëri kersa voilà du ko mëna sax euh, aborder euh, këru mag yoy war nañ fa indi ay spécialistes gérontologie la ñu fay def feebaru mag lañuy ñuy mag ñe man fa dem aussi di partager sen expérience ak ak xalé yi lolu amna ci solo euh, dama japp aussi ne fal aussi ku am expérience amna solo japp na né expérience bi amna ko parce que yaquma fi dara aussi yow naa ne kenn mosuma toppee dara loolu dafa am solo pourtant def naa ci régime bi dix ans ku am principe aussi parce que defe naa ne bañ ne troisième mandat ah, borom cravate yee grand boubou yu góor ñi eh, ñoom ñëpp kenn ñamawu ci woon wax ne lii jaaduwul. ba finalement aussi euh, grâce au compas des Sénégalais euh, mu tege yoon kon jàpp naa ne euh, am naa yéene bi déjà. am naa yéene bi euh, am na am naa compétence bi jàpp na euh, am naa éthique bi aussi yàlla dimbale na ma ci ma sàmm ci ba noppi nag soxna yi aussi euh, voilà jàpp naa ne dinañ indi touche boo xam ne touche yu yërmande lay doon touche yu yaatu hmm. parce que dëkk bi aussi dafa soxla daal dal bi nga xam ne jigéen ñi ñoo koy indi ci kër yi mën nañ koo indi aussi ci état bi rawatina nag fekkee ne am nañu am nañu taxawaay beeg expérience bi ak expertise bi wax ci sa bopp nag yombul <laughs> waaye nag euh, euh, voilà dinañu wàcc waxtaan ak euh, sénégalais yi. Mhm. ci ni ñu gisee réew mi. Mhm. parce que mbir mi au fond. Mhm. soxna Aïcha du affaire góor wala jigéen affaire taxawaay la. c'est ça loolooy li am solo du góor wala jigéen taxawaay la. gis nañ góor gu am taxawaay waaye gis nañ jigéen ju am taxawaay Sénégal it jigéen ñi yàgg nañ fi am taxawaay. <laughs> Très voilà Aline toutes les femmes politiciennes les Caroline Fay, etc. en tout cas merci merci d'avoir répondu à notre invitation et euh, on espère que vous avez réussi à convaincre euh, en tout cas ñi ñu le seetaan di la et puis bonne chance en tout cas merci beaucoup et bonne continuation à vous merci c'est gentil chers téléspectateurs on vous retrouve mercredi prochain euh, Inch'Allah c'est passé tellement vite. Oui.